ما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 sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alal haadil amiin seydina muhammadin al-makiin wa alaa aalihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkiin ixwatal imaani wal islaam wal ixsaan wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala boobu sallallahu alayhi wa ñoo leen di niiw di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc te nungul ñu suñu jaamu yàlla te di ñaanal atom tubaab mu bees mi ñu dugg yàlla defal na ci jàmm ak fekke ak tal ak wér ak xiwal ak mujj bu rafet jaamu yàlla gu nungu njëggalu bàkkaar fajal suñu yéppe aajo yi nga xam ni lu neex yàlla la subhanahu wa taala ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala daal lépp loo xam ne li jullit ñi ñu ngi koy mébét ci lu baax ci lu neex yàlla loola yal na ko yàlla sottal di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama leen di jéggalu bu baax itam di jéggal ñépp di ñaan yàlla nungu suñu njéggal googu baal ñu di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa kon tey xam na ginnaaw bi ñu siyaaree bokk yi ñu liggéey eh, bokkal liggéey bu sell bii yàlla boole rek nuyu leen siyaare leen di ñaan rek suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla gën ko yàggal ci suñ kanam bu baax a baax te dolli ko jàppale ba li mu bëgg liggéey liggéeyal islaam ñu mu yàlla jàppanal ko ko defal ko ci lu koy ñotam te nu ànd ak moom di jaay Seydina Muhammad sallallahu wa sallam bu loolu jàll rek kon ñu jéem a tàbbi ci laaj rek Eh, suñu laaj bi ñu fi jëkkaan tey mi ngi jóge ci Cheikh Babacar Ñing eh, leen di ziar bu baax a baax mbokk yi nekk bitim réew di leen doole ñaanal bu baax a baax di ñaan yàlla doole tawfiix bu baax a baax eh, Pape Babacar Ñing moom nee na dafay laaj xokkumu zawaaj bi nil xaali min bintim nil oxti dane comme yow boo amee jarbaat boo am doom yow itam nga am doom yow nijaayam sa jarbaat boobu doomam jooju ndax dina mën a takk sa doom jooju yow nijaayam waaw dañ ko naan loolu mu baaxun wa jaizun waaw loolu mën na nekk yow nit ki boo nekkee nijaayam maanaam yow sa bopp nga am doom sa jarbaat boobu itam am doom muy góor ak jigéen ñoom ñaar mën nañoo sëy ndax booy xool eh, ñi nga xam ne ñoom la alxuraan lim ne mënu ñëw si ñoom ñoo ñooñu dugg ci biir maanaam dugg ci biir kon loolu dina mën a nekk beneen laaj bi ci toppaatin mooy at tabliixu xalfal imaam day laajaat beneen laaj boo xam ne bii bu am solo la muy bu aju ci wàllu julli su ko defee mooy day laaj dane dafay gis ne daal fu ñuy julli julli mbooloo ñaare bu ñu jitalee imam ji day am koo xam ne kii day nekk ci ginnaaw maanaam bokk ci mbooloo mi waaye di jottali imam bi muy laaj na te it nee am na ñeneen ñoo xam ne ñii day seetlu na ñoom duñ ko def muy laaj ba xam ne euh, jotli googu dafa nekk lu war wala mën naa ñàkk waaw dañu naan at tabliixu fi salaati xalfa al yi yaxtalifu bi xasabil xaajati ilayhi jottali googu daal maanaam ak wuute da cee am niñ ca wuute nag mooy euh, jottali googu ñu def euh, bu fekkee ni dañoo xool ne jottali gi mën na ñakk su boobaa jottali day am waaye tamit euh, su fekkee ni mën naa ñàkk itam wax dëgg am na ñoo xam ni ñi dañu koo dàq ne maanaam jottali gi mën naa ñàkk ndax dañ naan jottali moom loo xam ne jotut la ñu di ko jottali la waaye bu fekkee ni imam bi li muy wax ñi muy àndal ci julli gi ñëpp ñu ngi koy dégg daal am na ñoo xam ne dañ ne kon jottali ga mën naa ñàkk waaye am na ñoo xam ne dañ ne jottali ko itam euh, mën nañ ko wéye daal saxal ko mu nekk loolu la wax nañ fa isa uhtija ilayhi li doo fi sawtil imaam yi aw kasratil musallina wa tabaudi sufufi fa tabliixu fi hazihi l xaalati mashruun ki nga xam ne kii day jiite su fekkee ni kàddoom dafa suufee maanaam nga xam ne noonu la kàddoom bindoo mën da yëkkati doom ba ñu bokkal julli gi ñëpp di dégg li muy wax muy allahu akbar yeeg sami allahu liman hamidahu yooyu xam nga yooyu lañuy ñuy jot li ngir nit ñi xam point yi fi mu toll ci julli gi nee na su fekkee ni imaam bi nag kàddoom dafa suufee ba ñëpp ñu ne ci julli gi duñ ko mën a dégg wala boog wala mu nekk lum bindoo walla feebar dab ko ci jamono yi ba xam ne maanaam mënatut a yëkkati kàddu ba ñëpp di ko dégg wala boog jullikat yi bari lool nga xam ne euh, fi imaam ji tollu sàppe yi dina dem ba dina am ñu ko sori lool ñoo xam ne ñii bu imaam ji wax allahu akbar yooyu duñ ko dégg ne ne su boobaa jot la googu day nekk loo xam ne ni maanaam lu ñu yoonal la maanaam nit ki di mën jotali kon ndax loolu liñ ci tegtaloo mooy lima sabata an ababakar ballaxa ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi salaatihi binnaasi li adami samaahim sawta nabiyi ndax ne nañu abubakar ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa jottali yonente bi ci ak julli ngir yonente bi dafa demoon ba di toll ca jamono joojee boo xam ne fi maanaam kàddoom mënatula ko kon daal tomb bi ci njëkk mooy su fekkee ni noonu la demee maanaam euh, imaam bi li muy wax am na ñoo xam ne ñii duñ ko mën a dégg daal ne nañ su boobaa jottali googu moom dinañ la may nga man koo def ñeneen yi itam waxaan ne wa amma isa kaana al imaamu yabluxu sawtuhu al mamumiina kullahum laa yushraw tabliix li ahadil ma'mumiina bittifaaxil ulama nee nañ la bu fekkee ni imaam bi moom bu waxee allahu akbar yooyu ñépp dinañ ko dégg ñi bokk ci julli gi nee su boobaa nag maanaam ak jottali moom maanaam duñu ko may kenn ci ña topp ca imaam ja muy jottali te nee loolu moom boroom xam-xam yépp dàq nañu ko li adamil xaajati ilay ndax nee loolu day fekk ni kon Euh, jottali googu moom amuñu ci aajo soxlawuñu ko euh, lima sabata indahum bi annahu lam yakun fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatihi man yuballighu xalfa rasuli illa li xaajatin ndax ne ne wér na ci ne jamono yonente bi daal amul kenn koo xam ne kii danga topp ci moom ci ak julli ak jamonoy saxaaba yi ñuy gis ne daal imam bi am na kuy topp ci ginaawam di ko jottulil lu dul ni maanaam euh, dañ ko yittewoo maanaam aajowoo bu nga xam ne jottali ga mënta ñàkk kon daal li ñuy wax foofu rek mooy jottali dal bu fekkee ni dañ koo yittewoo nga xam ne euh, ñu bokk ci julli ñëpp mënuñoo bokk di déggandoo kàddu imaam bi su boobaa dinañ maye ñuy jottali waaye tamit su fekkee ni kaddu gi imaam nga maanaam su waxee allahu akbar ñëpp di ko dégg ne nañ su boobaa euh, du ñu may ngay jottali kon daal comme loolu ma ko waxee ci ñaari tegtal yi bu ci nekk nag am na cib tegtal mooy fi lay maye nga jottali mooy ne gis nga bi jamono yi ca jamono yonante ba Aboubacar mas na ko jottalil ngir euh, dafa nekk ne jamono ji yonante bi dafa feebar ba mu mën di yëkkati kàddoom bu boobaa kon jottali ga maanaam dana yitte woon nañ ko kon dañ koy def waaye itam bu fekkee ni loolu amut maanaam ngant amut nee na Euh, lay tegtalu mooy ne ne amut kenn koo xam ne ki mas naa jot di yonte bi ci ay jamonoom lu du di dafa fekk ne dafa feebar wala kàddoom mënta yëkkatiku beneen laaj bi ci topp soxna Ami Fay Juuf moo ko fi yónnee muy laaj ak doa ba'da azanil fajri day wax ne day laaj ba xam moom bu ñu noddee nodd ak yeete daal comme ci fajar gi maanaam yan ñaan la war a ñaan euh, wa salaatu rakatayni baadal adhaani ak it ne ne moom day def bu ñu jullee bu ñu noddee nodd ak yëgle boobu rek yeete gi mu julli ñaari rakka toog di ñaan def ay ñaanam ak di def ay astaxfirullah di tudd yàlla daal ba kara ñuy eh, nodd nodd jullik farata gi muy julli suba gi kon dañ ko naan yu baaxu wa yajuuzu lil muslimi an yatanafala machaahu min an nawafili fi jamii al awqaatil mubaax at tanaful fiha dañ ko naan jullit bi daal wépp waxtu woo xam ne bii islaam daganal na maanaam ñu mën caa naafil la ne may nañ ko lu ko soob ci ay rakkaa mu julli ko def ko ak naafil la te di ko julli par ñaari rakka bu jullee ñaari rakka sëlmal ne na moom loolu loo ci mën a def ci sa coobaray bopp ci sa kàttan ne na maanaam amut ab kon ginnaaw bi ñu noddee nodd ak fajar googu muy nodd ak yeete gi bu la neexee ba kere ñuy nodd nodduk euh, jullik farata gi diggante boobu su la neexee ngay julli say ñaari rakka di sëlmal ba keroo ñuy salaatu gi waaye tamit su la neexee nga julli sa ñaari rakka muy la wala ñeent wala nu mën a toll nga toog itam yor sa kurus lépp loo mën a wax ci tudd yàlla muy xeeti tudd yàlla yooyu itam di ko wax ba keneen ñu noddu nodd ak julli suba nga xam ne gii moom la war a julli waaye tamit euh, bu ko defee diggante boobu nag boo fi naafila la nga koy xàjjale bu dee ni naafila yoo xam ne da nga ko coobaree rek di ko tànnal sa bopp di ko def mën ngaa la lu neex waaye tamit bu dee ni rakkaay fajar yi nga xam ni moom sunna su dëgër la nga xam ne danga ko war a julli ba nañu julli julli suba gi rakkaay fajar yi bu fekkee ni moom ngay naafila moom da ko yéenee te soo ko jullee nga toog ba ñu salaatu nga dog a bokk ci julli suba gi wala nga xaar ba ñu salaatu nga dog a julli ñaari rakkaay fajar yooyu bu ko defee daal ñaari rakkaay fajar yooyu daal boo ko julli moom na nga ko yéenee te boo ko xasee julli bu ñu salaatu wut bul doxale waat ak naafila ci diggante bi wala boo ko julli moom ñaari rakkaa yooyu ba ñu salaatu moom itam moom rek lañ lay mayti nga naafila ko foofu ci euh, bala ngay julli ci julli farata gi wala boobu nga jiital yeneen naafila yoo xam ne yii danga koy def ba pare balaa julli jot nga doog a julli ñaari rakkaay julli julli suba gi naka noonu itam ci loolu soxna si laaj ci wàllu tudd yàlla googu jéggulu gi dañ ne it wa kazalika lahu an yastaghfira allaha li nafsihi wa li jamii al muslimina al ahyaai minhum wal amwaat ne na may nañ ko moom jullit bi may nañ ko muy jéggulu yàlla di ñaan yàlla jéggal ko moom ci boppam waaye tamit sañ na wax yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal mboolem jullit yi nga xam ne yii dañoo faatu ak jullit yi nga xam ne yii faatoo yépp maa ngi lay ñaan yow yàlla nga jéggal leen su ko defee mën ngaa ñaanal sa bopp daal waaye itam mën ngaa ñaanal jullit yépp te loolu lu am solo la lu baax la loo xam ne li jullit bu nekk da ko war di def di jéggulul sa bopp di jéggulu jéggulul mboolem jullit yi maanaam moo xam ñi jiitu la mooy jullit ya nekk barsax la ñi nga xam ne ñi faatooguñu ñu ngi fii ci kaw suuf jullit bu nekk am nga sañ maanaam di leen ñaanal su ko defee ne ne Sëriñ Bàmba cheikhul xadim dafa wax ne fa kullu man nazara fal yaddu lana bi xayri ma yudaa li abdin ahsana ne ndax ne ñaan dafa am solo ba cheikhul xadim mi sax mu bind téere boobu tudd masaalikul jinaan danoon téere bi daal yow képp koo xam ne kii xool nga ko rek maa ngi lay ñaan yow moom mu gis téere bi nga ñaanal ma ci li gën ci li ñuy ñaanal jullit boo xam ne bii Euh, def na lu rafet isid yan fa maydan fil xubur wa yan fa lu yu jibul ujur ndax xaarim rasul na ne ñaankat mën naa jariñ ki nga xam ne ki jullit bi nga xam ne bii dafa faatu ba nekk ca bàmmele waaye tamit ñaan mën naa jariñ jullit bi nga xam ne bii maanaam moo nekk fii ci kaw suuf euh, di ñaanal boppam di ñaanal yeneen mbokki jullitam yi te sallallahu alayhi wa sallam it dafa wax ne adduaa silaahul muminin sayduna muhammad dana ñaan daal mooy ngànnaayal jullit daa di waxat ne laa yaruddul xada al mubrima illa duaa sn sallallahu alayhi wa sallam waxaat na itam am na atte yoo xam ne yii bu ko yàlla xase atte dara mënu ko dindi lu ngay ñaan yàlla ba daje yërmandeem loole maanaam ñaan nga dog koo dindi mooy lu ñu dogal ci yow yàlla far ko bàyyi ngir ñaan koo xam ne gii danga koo ñaan kon daal ñaan lu am solo la ndax yàlla ne dane ud'uuni astajib lakum yéen sama jaam ñi ma gëm na ngeen may ñaan su ko defee ma di leen may la nga xam ne lii moom ngeen di sàkku ci man yeneen laaj yi ci topp soxna Astofa yi moo koy laaj ñu ngi koy siyaar bu baax a baax moom itam di ko ndokkee moom itam bu baax a baax ci yitte woom liggéey bi ak bëgg lu baax astufay dafay laaj ne xukkumu euh, xiraati isnay ashra alf basmala fidaan alkayfiyatu qiraatuha fi lxayaati wali mayitin wa taqsimuha astufay dafay laaj ne dañ ko ne bismillahi rahmaani rahim nga wax ko euh, fukki junni ak ñaar dañ ne loolu jullit bi bu ko defee ak njot lay doon ci moom ci sawra maanaam day tax du dem sawra daal am ni ñu ko mën a waxee muy laaj nag moom naka lañ koy war a mën a defee maanaam nit ki mën na ko defal boppam ci dundam waaye itam ndax nit ki mën na ko defal beneen bokkam jullitam waaw loolu day lu am solo la lu baax la muy nga wax bismillahi rahmaani rahim sa kurus wala loo koy limee ba mu nekk fukki junni yoon ak ñaari junni yoon loolu e, njariñ yu baree bare bari la làmboo tey e, am nañu wax ne maanaam nit ki su ko defee sellal ko te yàlla rek tax e, te mu jublu ci yàlla jéggal ko baal ko ne na loolu mën na nekk ak jotam ca sawra euh, na mu koy jotee sawra nag mooy bismillahi rahmaani rahim dafa am doole ba maanaam nit ki su koy baamu di ko wax di ko sellal te yàlla rek tax maanaam day dindi ay bakkaaram te nit ki su fekkee ne da koy baamu nag di ko wax lu baree baree bari bismillahi rahmaani rahim yooyu di dindi bakkaaram yi day dem ba day set wicc ci ay bakkaar te jullit bi moom bu amul bakkaar su faatoo euh, bu demee rek dañ koy daal di dugal àjjana waaye du dem sawra duñ fa nekk di ko raxas wala ñu di ko fóot wala dara kon day amut ay aajo itam ñu am ciw déggin ci ne euh, maanaam buñ ne fukki junni bismillahi rahmaani rahim ak ñaari junni maanaam nit ki bu ko defee mën na koo jote ci sawra maanaam maanaam li ab li bismillahi rahmaani rahim ji làmboo moo tax ñu wax loolu mooy day dindi say bàkkaar boo amee ay bàkkaar di baamu bismillahi rahmaani rahim euh, maanaam day dindi bàkkaar yooyu te nit ki boo amuti bakkaar kon bu faatoo du dem sawara su ko defee buñ demee ba ca kanam it dinañ ci gën a am ay leeral yoo xam ne yii dina gën a leer ci tegtal yi loolu ñuy wax ne mën naa tax nit ki du dem sawara bu ko defee niñ ko defee mooy rek soo ko mënee benn yoon nga toog ci benn jataay xam naa dina xaw a jafe lool ci lim bi dafa bari muy fukki junni la ak ñaari junni boo ko mënee defandoo benn yoon baax na waaye tamit soo ko mënta def mën nga ko def ay xaaj yoo xam ne yii da ngay xool aw waxtu woo ko jagleel woo xam ne yii su jotee nga séddale ko ne naal saa bu waxtu sàngam jotee daal dinaa ci def nangami bismillahi rahmaani rahim ba kere nga xam ne day mat waaye itam mën nga koo defal sa bopp yow mi nga xam ne mii eh, yaa ngi nekk fii ci kaw suuf di dundandi eh, war nga mën a jéem a góorlu ba fukki junni bisimilah rahmaani rahiim ak ñaar nga defal ko sa bopp moo gën a wóor sax nag moo gën a wér te it mën nga ko defal li tamit mbokk mi nga xam ne mii ab julit la faatu jóge fi moom itam bu la neexee. nga jàng fukki junni bismillahi rahmaani rahim yooyu ak ñaari yéene ko yool ba yàlla mën na ko caa jotale su ko soobee mu nekk loo xam ne lii njëriñ lu rëy rëy lay doon ci julli bi nga xam ne bii dafee jóge faatu ñu defal ko ko waaye tamit yow julli bi fi nekk faatoo ko itam soo ko defalee sa bopp itam euh, lu gën a ama am solo lay doon ndax noonu mu ko waxee njariñ loolu nga xam ne lii moom la làmboo dañuy wax ci ngëneel yi baamu bismillahi rahmaani rahim ne le fadlu takraariha min ahamil ibarati allati yajibu ala al insani an yastaxdimaha bi shaklin mustamirin ne le daal di baamu di wax bismillahi rahmaani dafa bokk ci li gën a am solo yoo xam ne luy jëriñam juuti la lool nga xam ne nit ki dafa war a góorgóorlu ba di ko jëfandikoo ci anam goo xam ne gii maanaam gu sax lay doon nga xam ne saa ne rek loolu nga di ko tudd ci sa làmmiñ muy bismillahi rahmaani rahim nee nañu man xaraaha yaxsulu na ci njëriñ yoo xam ne di wax bismillahi rahmaani rahim làmboo na eh, xam ne yi njëriñ lay doon yoo xam ne day jëriñ nit sax ba ci àllaaxira ji la wax da koy jëriñ àllaaxira ne ne bokk na ci njëriñ yooyu tuddaa'iful xasanaati ne ne bokk na ci njëriñ di wax bismillahi rahmaani rahim ne ne dalay dolli ay yiw maanaam dalay tax maanaam soo koy wax rek maanaam ñu lay bindal ay tuyaaba loolu itam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne man yaquluha tuktab lahu arbaatu alaafin wa tumha anhu as-sayyi'at yonente bi ne ne képp koo xam ne kii yaa ngi wax bismillahi rahmaani euh, benn yoon boo ko waxee rek ñu bindal la ñeenti junni tuyaaba waaye tamit faral la lu mat ñeenti junni bàkkaar yoo xam ni maanaam defan nga ko ba tey mu waxaat ne bokk na ca njariñ ya muy taj du jannibul xaari a an naara yawmal xiyaamati gis nga lañu waxam ne fee ak njot la ci sawra gis nga ne ne bokk na ci njariñ bismillahi rahmaani rahim ne ki koy jàng maanaam euh, loolu mën na tax mu mucc ci sawra bu bis penc ba wa dalilu ma zukira fi lquraani indama staana biha ibrahimu alayhi xabla an taxriqahu naar mimma jaala naara baaridatan alayhim dana itam li ñu tegtal ne bismillahi rahmaani rahim mën naa musal nit ki ci mooy sayduna ibrahima salaam ba nga xamee ne noonam yi dañu ko taalal sawra su tàng bëgg ku caa dugal dafa wax bismillahi rahmaani rahim ci baat boobu mu wax rek maanaam ci la ko yàlla musalee ca sawra sa ba tax sawra sa bañ ko ca sànnee maanaam sawra sa lakku ko qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima kon gis nga loolu itam lam doon wax fee itam ci maanaam mën naa nekk ak njot ci sawra loolu tamit ab tegtal la ca mën a doon yonente bi sallallahu waxaat ne man xaraaha sabina maratan buniya lahu xasrun fil jannati yonente bi sallallahu alayhi wasallam dem koo xam ne toog nga ci béréb wax bismillahi rahmaani rahim juróom-ñaar fukki yoon ñu daal lay tabaxal ab néeg ab pale bu rëy rëy ca biir ajjana tey am na njëriñ yu bare bare yoo xam ne xañ na émission bi du may ñu mën koy lim loolu rek waaye daal lii mu ci wax ni daal mën nañ cee tegtaloo ne euh, mag ñi nga xam ne ñi xool nañ ba ne fukki junniy bismillahi rahmaani rahim ak ñaari junni ak ñaar ak ñaari fukki junni ak ñaar douze ak ñaar yi daal ne nañ ku ko def muy sa jot ci sawra gis nga lam cay tegtale mooy boo ko sellale def ko ak jaamu yàlla maanaam mu sippil la say bàkkaar di la bindal ay tuyaaba ci gis nga ti njariñ yi nga xam ne yii wax nañ ko fii moom bismillahi rahmaani rahim mu làmboo ko kon yal na yàlla doole jàppale ba ñu mën di dellu ci yàlla ci yooyu nga xam ne yii yu am am solo la maanaam dina jëriñ ci suñu dund waaye itam dina jëriñ ginnaaw suñu bakkan beneen laajam bi ci topp mooy taaxiru xadaai ramadan dafay laaj ne koo xam ne kii dafa waroon fay dafa am borob koor war koo fay ba geneen koor du gaat loolu lan mooy atte ba nan lay def dañ ko naan isa kaana min duni usrin wajaba tawbatu wan nadamu wal xadaau wal kafaaratu nit koo xam ne kii daa am borob julli sàggane ko ba beneen koor beneen ramadan dugg dane bu fekkee ne amul ngàntal bu amul ngànt ci fay ga dana kooku loolu war na koo tuub ndax day doon bàkkaar ci moom waaye itam war na ko rëccu waaye itam war naa fay fan yooyu nga xam ne moo ko rawan ca koor la jàll bu koor gi jeexee waaye itam su boobaa itam da cay boole ay daan yoo xam ne dañ ko cay teg itam maanaam ki nga xam ne kii daal koor gi jàll am na cay bor daa war a góorgóorlu balaa beneen koor a ñëwaat mu fay ko ndax loolu mooy li war léeg su fekkee ni fayu ko ba geneen koor gi ñëw duggaat su boobaa na xam ne def na bakkaar boo xam ne war na koo tuub war na koo rëcc waaye tamit bu koor googu jeexaatee itam lam amoon ca boor ca koor gëla jàllan maanaam da ko war a fay waaye itam euh, da koy boole ay daan yoo xam ne yii maanaam dañ ko naan da ngay fay bés yooyu te bés bu nekk da ngay wut loolu ñuy wax nisfu saa muy mudd lañ koy wax te mudd mooy niñ ko xaymaa niñ ñu ko jàngale fii dal mooy day toll ak sept cent cinquante grammes yaakaar naa mooy doon génn waa libar dana génn waa libar yooyu nag nga di ko dajale ba sa bis yooyu ngay fay noonu bés bu nekk nga joxe mudd boobu nga génne mudd boobu teg ko soo ko dajalee ba mu kii ba bés yi mat loolu nga doon dajale ci aw ñam mu doon say daan yoo xam ne danga ko doon boole fay nga xam ne gi moom nga doon fay koor googu nga yeexee na fay ba geneen koor ga dugg nga wut am miskin wala faqir maanaam nga jox ko ko loolu daal mooy atte bi nga xam ne gii am na bori koor sàggane ko ba geneen koor dugg su koor googu jàllee da koy fay waaye itam da ciy boole daan yooyu mooy day wut aw ñam woo xam ne bii euh, nit mën a lekk la mu wut ay 750 grammes ci ñam woowu wàññi bés ya muy fay na mu tollu mu natt sept cent cinquante grammes yu toll noonee boole ko jox ko ab miskin boole cay tamit day fay bés ci koor da koy woor di di di joxe loolu beneen laajam mi tey day laaj sawmu nafli ala man wajaba alayhi xadaaw ramadan ne ne ndax ki yoo xam ne ki daa war a fay bori koor mën naa woor koor yoo xam ne koor yi naa fi la lay doon fii xilaaf baynal ulama ne ne loolu nag maanaam borom xam-xam yi dañ ci am ak wuute ne nit ki bu amee bori ndax man sañ naa la ji di woor yeneen bés yoo xam ne koor ak naafila lay doon borom xam-xam yi dañ cee wuute nee na nag wala arjaaxu annahu yabdaw bil xodooy nee na nag xel mi xalaat biñ ci gën a jàpp liñ gën a jàpp ci wàllu googu biñ ci wuute itam dañ ne nit ki maanaam bu waree fay dafa war a fay ba pare dog di Eh, def ay koor yoo xam ne yii koori naa fila la waxaala baadul da yabda ubbi sunan li anna waxtaha dayixun xat tafuutu wal xadaawu waxtuhu waasiun am na ñeneen borom xam yu ne nag bu ko neexee mën naa tàmbalee ci di naafila naafila yooyu doog a fay koor gi mu war a fay ndax ne nañu bu dee ni eh, koori koori naafila la dane waxtoom dafa xat waaye bu dee koor goo xam ne gii danga koy fay moom waxtoom yaatu na yaatuwaay boo xam ne bii di nga mën a am temps soo defee koori naafile ba pare di nga am occasion mën a fay euh, koor googu nga xam ne gii moom nga war a na fay fayit nag li tax mu ne koor yi naafile yi maanaam lu mel ni bésab arafa nga xam ne dañ de ku ko mën a woor mën nga ko woor xam nga benn bis la day jàll waxtoom dafa xat wala bisëpp euh, tam xaritam ñu ne baax naa woor sopp nañ ko moom itam xam nga waxtoom dafa xat kon ne ñi ñii ñenn ci borom xam ne dañu daal koor yu mel ni moom surtout mbeeg nga war a fay ci koor ak ramadan yi dugganteeg moom mën ngaa woor bés yi nga xam ne dafa xat te léegi nga xam ne moom wutul luñ ko waxtu saabu la jàpp ndee rek nga mën koo def muy fay ga nga daal di koy mën a fay ginnaaw bi nga wooree koor yi nga xam ne yii koor sunna la ba pare naam da nga koo co di ko naafila yeneen laaj ci topp Basiiru Fay moo ko fi yónnee ñoo ngi koy siyaar di ko ndokkee moom itam dafay laaj moom kayfa yukmilu salaata manis tuxlifa dane koo xam ne kii julli koo xam ne ki dañ koy julli imaam bi dem ba mënatu am am ngàntal mënatu la àggale julli ga mu xëcc kenn ci ginnaaw ci ñi nekk ci sàppe yi ngir mu mottali julli ga ne ne kooku ñu xëcc kooku imaam bi xëcc ngir mu mottali julli ga su ñëwee nan lay àggale julli ga day kàbbar kàbbarab armal wala nan lay def dañ ko naan yabdaw min xaysu waqafa al imaam koo xam ne ki daal danga nekk ci ak julli julli mbooloo imaam ba am ngànt ba xëcc la kooku mu xëcc su demee ba taxaw fa imaam ja taxawan fa imaam ja amee woon ngànt rek fa lay tàmbalee waaye du fekk ni day ñëwaat di kàbbar beneen kàbbar walla muy baamuwaat la nga xam ne lii moom la imaam ja jàllaleen ca julli ga fépp foo xam ne fii fa la imaam ja taxaw rek xëcc ko mu ñëw taxaw ci palaasu imaam foofee lay sos julli lay tomb continuer julli ga mottuli la nga xam ne lii moo des ci julli ga waaye li nga xam ne lii moo jàllan ci julli ga imaam nga moom loola doo du ca laal dara fexe daal ba xam loolu dañoo bëgg boo toppee ci imaam nga koy gën a bàyyi xel bu baax a baax di xam fan la bi toll ci julli gi ndax loolu moom lu mën a am la imaam bu demee ba am ngànt ci julli maanaam ak julli di su ko dagg day xëcc kenn ci ginnaawam su ko defee moom day ñëw mottali julli ga mottali julli ga nag mooy da ngay xool fa imam ba yeman rek pii mu lay xëcc nga daal di sos foofa julli ga daal di continuer daal di koy àggale loolu moom moom la ki nga xam ne kii moom lañ xëcc ngir mu war a mottali euh, julli googu noonu la war a julle waaye li imam ji jàllale ci julli du ci laalaal dara day jël rek fi imam ji yeman mu daal di continuer mottali la des ci julli ga beneen laajam bi ci toppit xam naa day wax wàllu tatouage maanaam bindu ci yaram ak yooyu boobu it wax dëgg yàlla jàllale nañ ko ci fatwa bu jàllan boo xam ne yaakaar naa numéro bi defe naa vingt neuf laan fatwa vingt neuf xam naa doon nañ sàkkuwaat ci jëwriñ ji sax muy muudu ngom muy saytu liggéey bi wax dëgg yàlla yal na ko yàlla doole defal tawfiix ba mu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet wax dëgg yàlla bu am solo booy mooy audio boobu maanaam dugalaat na ko démb ci groupe bi waaye itam loolu mu ci wax itam da ci am solo lool ndax wax dëgg yàlla nag bu ñu dugalee laaj itam euh, ñu di ko bàyyi xel ba di ko saytu ba di ci jéem a góorgóorlu di ca jàllale ñu ca jàllale yi tamit maanaam euh, xañ na bu ko ñëpp mënta déglu ndax loolu mënta ne moom yow mi nga xam ne nii laaj bi dalaa yitteel moom ba nga laaj ko war ngaa am yitte wax dëgg yàlla saa bu ñu defee tontu laaj yi ñu ko déglu ba xam sab laaj jàll nam déet ndax laaj bi biñ ko laajeeg léegi yaakaar naa lu mat juróomi fatwa war na fee jaaral yoo xam ne yaakaar naa war na koo mat kon nañu xoolaat audio boobu nga xam ne bii Modou Ngom dugal na ko moom bas su ko dilloo maanaam dina fa fekk Euh, tontu boobu nga xam ne bii moom lañ defoon ci wàllu tatouage woowu muy laaj ma nga foofee maanaam audio bi Modou Ngom na ko démb ci groupe bi kon nañ ko xoolaat foofu bu fekkee ni jotut audio bi wala xool gisu ko bu ko waxaatee ñu xool fatwa ba fu mu tolloon ci liggéey bi ñu yor fii ñu jéem ko faram fàccewaat rek ñoo ngi jéggulu ñëpp di ñaan yàlla defal ñu daw yàlla di jay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hallelujah.